wa sallallahu taala sayyidina musalim bisimilah mbak sëñ Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu uh, yéen mbokki jullit yi mbokki taalibi yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen ñaanal tawfiq ak taysiir suñu borom bool ñu ko defal xanaa ci tënk rek di nuyu bu baax Serigne Mourtada Gaye borom tawfiq production. du sunu rakk du sunu xarit du sunu lépp euh, mu doon euh, doon doomi taalibe doomi Serigne Badara Gaye mu doon ko baayam ku ñëpp xam la mu mel nag tey jii dafa am lu lu xew am ku ñuy fàttaliku di ko di ko sant kooku di Serigne Mbacke Diop Kalsaan sëriñ Mbacke Kalsaan nag mooy doomi Serigne Ibrahima Diop. almashariyu mooy ki xam ne moo ko njëkk nekk ab xalifaam mu doonoon jëmm joo xam si ne si jàmbaar Sëñ Tuubaa la bokk mu doon koo xam ne kennal Sëñ Tuubaa ñu ko njëkk a def damay wax sax moom moo ko njëkk a def ndax loo ko masaan wax lu dul Sëñ rek lu ma doon rek loolam day si maslaa waaye doon loo xam si ne luy bàyyi xel la loolu moo tax maam ay sëtam si njiital sëriñ Xaadim euh, Diop si dundu ko sëriñ Sëriñ Kalsaan seen ñaanewu ndigal le ñoom daal gis nañ ne sëriñ Mbàkke Diop Kalsaan seen wajur yu baax yi ñoom bu bokkee ci bàmba ji moo tax ñoom seen bi ñu xalaat ne war na ko defal bis boo xam ne si dañ koy sant cant goo xam ne si ne boole gi mu boole si bàmba ji moo tax ñu ko def bi ñu ko tàmbalee léegi nag yàgg na. waaye xam naa ne loolu ku mel ne Serigne Bassirou Diop moom dana si ñëw dana wax maanaam euh, ñaata at lañ ko def ak ñaata ñaata yoon lañ ko tuddee ay kilifa moom dana la si wax. waaye suñu mbéyum kosaan daal si gàttal moo doon jàmbaar Sëñ Tuubaa joo xam si ne si ak ndawam si la amee ngërëmal Sëñ Tuubaa ndax Serigne Serigne Serigne Almasari mi way juram bi mu feeñee jamono la ne la ne tudd naa la doom waaye bala nga koo gis day indib kaamil ba noppi nga doog koo gis yàlla dogal si dogalam ak mbaaxam mu bind ab kaamil mbind wu rafet wu wu méngoog bëgg-bëgg sëriñ bi sëriñ ubbi kaamil bi ñetti yoon na ko waaw góor waaw góor waaw góor kaamil bi mel na ni ku yar mel na ni si borom bëggee xanaa si ak ndawam si la si la si la waxee woon ne baa déggee waaw góor Sëriñ Tuubaa laa noppee doon yaafus noonu doon doxe di ko doxe ba mu bokk ñi Sëñ Tuubaa mujj liggéeylu si la bokk ndax Sëñ Tuubaa woowaat na ko euh, njaarim di ko bind loob kaamil kaamil boobee laataa muy noppi si la ko baax ki ji boromam nga xam ne moo ko mujj bindal kaamil kaamil doon ñaanale Sëñ Tuubaa ñaan tànnoon ñu koo jàng moom si la bokkoon Sëñ Tuubaa fekk na ko mu toog bi mu bind kaamil xëpp ko ay yéreem yoo xam si ne dafa tax rippëg daa ak ko jox ko mbaaj ji loolu ñu bari xam nañ ko kon daa si gàttal daal koo daal ñu ngi ñaan daal su moom taas si barkeem barke sëñ Tuubaa waaye jàmbaar la joo xam ne si daal ku jara fàttaliku la ku jara màggal la kon xanaa sëñ Murtada dañuy gàttal foofu kàddu gi rek euh, bàyyil sees ku mel ne sëñ Basiru Diop day moom dana leeral maanaam dëgg-dëgg bis li ko waral bisimilah kon sëñ Basir bisimilah. bisimilah mina shaytaani rajiim rabbi xos bi ka min hamasal sayaatin wa xos bi ka rabbi an yahduran mbokki julli di mbokki taalibe ñoo leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne moom lañuy defal sunu maam Serigne Mbacké Diop Kalsane di wax ne bis bi bi ko dalee defal léegi def na juróom benn bi mooy sixième édition bi bis bi nag boo gisee ñu koy def ñu sët ñoo taxaw di ko def ànd ceeg mbokki taalibe yëpp ànd ceeg njabootu Cheikh Ibrahima Diop almachar yëpp waaye ànd ceeg njabootu Serigne Mbacké Diop Kalsane yëpp bis bi nag bi ñu ko dalee defal léegi bi mooy sixième édition bi bis bu njëkk bi ñu ko tuddee woon sëriñ Abdou Wahab Diop tuddee ko sëriñ Bàcci Diop moom Cheikh Ibrahima Diop almashari waaye tuddee ko sunu way ji sëriñ Cheikh Diop Kalsaan mi nga xam ne biñ koy sos ci ndigalam lañ ko sosee nga xam ne ànd ko ñun lu mat juróomi ñeenti at yàlla dogal ñaari at yi fekkewu ko di ñaan suñu borom yokk leeram tataas ñu si barkeem bis bi nag bis la boo xam ne si ne bis la bu rëy ci ñun ndax njabootu Cheikh Ibrahima Diol Massar yëpp ñoo koy teewee Serigne Mbacke Diop Kassane di doom ci Cheikh Ibrahima Diol Massar boo xam si ne Serigne Touba moo ko tarbiyee moo ko yar lépp lu mu am rek si Serigne Touba la ko amee nekkoon koo xam si ne kenn du ko naatam ci biir dëkk bi di Touba. kon bis bi biñ ko dalee defe léegi liñ ko waxee juróom benn at la ñeenti at yi tuddee nañ ko Serigne Abdou Wahab Diop ak di ibnu Cheikh Ibrahima Diol Massar tuddee ko tamit sëñ Bass Diop si ibnu Cheikh Ibrahima Diol Machari waaye tuddee ko sëriñ Cheikh Diop Kalsaan ibnu sëriñ Mbacke Diop Kalsaan tuddee ko tamit soxna Yaasin bintu sëriñ Mbacke Diop Kalsaan bis la boo xamante ne daal ay ndaw rek koy def di dajale sunu ñàq ànd koog boole kilifa yëpp sëriñ Cheikh Ibrahima Diop al Machari di xalifa Cheikh Ibrahima Diol Machari waaye xalifa sëñ Mbacke Diop Kalsaan sëriñ Bayla Diop ak i rakkam Cheikh Massamba waaye xalifa sëriñ Cheikh Diop Kassane sëriñ Abdou Wahab Diop ak mbokki taalibe yëpp ñu ànd ko ñoom di ko def kon ñi ñaan rek lépp luñ ci def rek lépp luñ ci sàkku rek yàlla nañ ci daje ma ngërëm sëñ Touba bis nag bëgg nan saa bu ñëwatee rek di gën a xéewale ñaan nan yàlla di ko def ba di ko defee fu ne ci biir réew mi ndax sëriñ Mbacke Diop Kassane ki ne liggéeyal du ko ndaw waaw kon loolu lan amoon ci wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu jox jëwriñ Abibou Gaye rek boo defee yi des moom moo koy xam wàllu organisation bi moom moo koy yore jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen ni yéen mbokki yi leen nuyu yéen waa télé bi site bi di rafetlu seen teewaay ci jataay bi suñ xol seet na lool ñun mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu. ñun nag ay dongaloon yoo xam ne wàllu organisation bi ñun ñoo ko yor ci niñ koy doxalee ànd jàng ndaw ñu sawar ñu pësteefu booloo doon benn ñun ñëpp ñu ànd nekkandoo. di liggéeyal sëñ bi rek te kenn amul lu ci soññ sa morom ndax yàlla def na dañ ko di ñuy sàkku ci képp koo xam ne ñuy seetaan di ñu déglu nga ñaanool ñu gën a booloo doon benn ba lépp loo xam ne liggéeyal Serigne Touba la ñu mën cee taxaw nañ ca war a taxawee jëmale ko kanam ci lépp loo xam ne ñi koy bëgg ci kër gi ndax dañoo am ay programme yu bari yu jege yoo xam ne tamit mbooloo mi nga xam ne donga yi ñoo yor wàllu organisation bi noppal nañ ci maanaam soxna yi ci lu bëree bëri ñu teg ma ci bopp ba man ma ànd ko ku mel ne sëñ Dame si mi ak ñeneen ñu bari ñoo xam na ay ndaw lañ te sawar nañ ci li ñu def lool ñoo la ko gën a bëgg amul kenn koo naan ci defalee ñoo la koy gën a bëgg ñoo lay soñ di sàkku tamit képp koo xam ne mi ngi dégg suñ kàddu foo man di nekk ñi ngi sàkku ñaan nga doole ñoo ñaanal ndax ay ndaw lañ te bëgg nañoo liggéey sëñ Tuubaa te ñu ñaanuñu suñu laxasaay teg mukk ba abadan lépp loo xam ne mbégte la ak cofeel ñu ngi koy bëgg nañ ko àndandoo kilifa yi nga xam ne ñooy suñu kilifa ci kër sëñ Mbacke Diop Kalsane gi ak këli ak waa kër Cheikh Ibrahima Diop gépp rek waaw def nañ benn social boo xam ne tamit ñu ngi ciy doxal dañ cee bëgg bu yàlla dogalee ñu am xalaat yuñ ci xalaat waaye nag nañ koy taxaw ba ci kanam incha allahu rabbi dañ ko bëgg a taxaw ba ci kanam bam xaw a am fu mu toll ñu jóg cee waxtaane gën ko euh, gën cee def ay mbir yoo xam ne kenn ku ne da nga gis sa bopp waaw ci wàllu liggéey beeg lépp rek waaw ñu ngi koy sàkku nag fu waay nekk rek da ngay dégg suñ kàddu nga dolli ñu ñaan ñaanal ñu ba liñ ci bëgg ñu am ko ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax.